aslim taslam kon dafa am lu ma ta xam ba bi mu delloosee njëbbal njëbbal moom dafa mënta ñàkk buñ defee ne l'islam inna diina inda allahi l'islaamu néew diine diine diine diine yàlla l'islam la tudd turu l'islam defin wi la daf ne diine fa yàlla mooy nga jox ko sa bopp inna diina inda allahi mooy nga jox ko sa bopp waaye néewuñu mooy lu tudd l'islam te li la koy xamal mooy laay ji bi fi mu jeexee mooy fa in xaajuka su fekkee yaa ngi wax te xamuñu li ñuy wax yow yow Muhammad وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين نيل أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا لولو نيول هل دخلوا في الإسلام بني نيتي سين ديني تفك دين جوجي دا عندك ني جوخ سين بوب يالا لولو لا وخون ابراهيم لولو لا وخون نيكو جيكون لولو لا وخ يونس صلى الله عليه وسلم سين توبايب بيمني لولو دا فا مانتي moo tax as shirku inda Cheikh Ahmadou Bamba du wutal yàlla loolu dafa koy wax xam nga li nga ne li nga li nga jàpp ne moroomum yàlla la ba loolu amagut mënta moroomanteeg yàlla ba mu demee ba nekkatutit nekkatul bi moroomanteeg yàlla moo tax wutal yàlla moroom moom dafa def waaye as shirku mooy li nga moom nga am loo ca dese dañ koo jox yàlla te loolu lu jafe la moo tax sëñ Touba moom wax ne da ngay da ngay jox sa bopp yàlla ba mu ko defee moom ba desee la tudd boppam dara nag la ko yàlla joxa joxa jox ba nga xam ne deesu ne yàlla deesu lu tudd waaye jox na ko ba jox ko loo xam ne mosu ko jox kenn xam nga dafa wax ne ilaya qaada allahu ma lam yakun wala yakunu abadan li mumkini جملة بطل نيتي لأحمد المختاري ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن صلى الله عليه نياري نياري مك صلى الله عليه وسلم نيوكو بك خم جن لولو لومتي جبلو إلا يقاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا موي بادي نسوسو بفين طلو كتلو خادم الرسول مسلم لولو لجبلو تي بطل صلى الله عليه وسلم من نيت لأحد المختار ما لم يكن ولا يكون ما بين يانا مسام خادم من سنتو باهم كن مستنك خادم يجك سنتو باهم كن لولو تكن دوكو دونان لتم ولا كن بوبا دنغا جلال دنكو دنكو روي صلى الله عليه وسلم تم مرام يونانتي كن كوتي ام اب خادم ام بومن سنتو باهم متى سنتو باهم نلوك مسام te kenn du ko amati muy doon gi doon xaadimu rasuli sallallahu alayhi wa sallam it am lu loo xam ne kenn mësu ko am kenn dootu ko mooy xaadim bu mel ni sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nag ñoom dañ koy dund wax nañ ko sànq taalibe bu nekk na muy lijjantee boppam na muy laqarcee na muy demee na muy dikkee loolu lépp laaju ci kenn xalaat dama ngay dox waaye li nga xam ne nag duñ ko doyal mukk te duñ ca màndi mukk te duñ ca regg mukk mooy sëñ Tuubaa loolu nag daldi di nekk loo xam ne euh, kon foofa ngay xamee ne xetti nañ defaru nañ te dootuñu yàqu la ca des itam mooy xasaayid yi ni ko taalibe yi bëggee kenn ku nekk wut nga sa dogub xaside boo xam ne dégluwoo ci saf sëriñ te xaside yi ñooy doom yi sëñ tubaa ñooy doom yi sëñ tubaa sunu bàyyi yi nu meññ nun ñii ku ci nekk xam nañ ne sëñ tubaa mooy sa waajur waaye xam nañ nag sa waajur wu jigéen xaside yi sëñ tubaa yi seen ndey di seen bàyyi sëñ Tuubaa mooy seen ndey di seen baay ñoo tax ñu nekk doomi sëñ Tuubaa xasida yi bu fekkoon ne kenn jàngatu ko kenn bindatu ko kenn dencatu ko yi xasida gu ne ba ko sëñ Tuubaa defee daf ko yéegal ma dem ba aras ànd ak malaayika yi di sabaa nga xam ne loola moom ma ngay jëf la mu war a jëf yii dañuy jañ liñ war a jañ yii di ñoddi yi war a ñoddi yii di teral képp ku gën sëñ Tuubaa te di ko teral nga xam ne mooy seenub liggéey zintu te tadooru bayna al arshi wal kursi nga xam ne seen liggéey mooy tamxul may na tamxul may na foofu la jëm moo tax yi ngeen di gis yépp lu yëngu réy réy di lu lu sosu gannaaw sëriñ bi du mujj fenn ndax almaynu la mm-hmm. maynu mooy loo xam ne xel a ko rab ba mu jub fi moom mooy ñu ko teg bokkut ak kasibu mm-hmm. maynu day nuru lu yanu maanaa te jëmut fenn mm-hmm. loolu nag def nañ daldi eh, won yu bare bare yoo xam ne sëriñ bi la ñuy woon li nga doon wax sàng borom bis bi nag moom man euh, dama ci dul mat seere ndax fi ma ko teg moom it ñu bari xam nañ ni buñ ko sañoon a wax day mel ni mëtul seere ci man ndax fam ma teg waaye nag kii maanuk sëñ Tuubaa moom gisu ko mën a ñàkk waxtaani ndax sunu boroom bu bu amutoon lenn sàkkut lenn eh, bi moom dong koy kenn ku ku koy xam ba di ko yéem mbaa nga di ko jaamu doom sëñ Tuubaa eh, li mu def loolu ci lañ koy mën a xame doomam yi kenn koo ci xane suuxul xaatimati dal na la amut suul xatimati nag waxuma ci jikko loolu moom wala yaasu billahi waaye kenn ku ci nekk danga nga ànd ak sam xel ànd ak sa sago faatoo waxtu nekk ci li ngay nekk ba wujjiwaat sëñ Tuubaa ji gis ñàkkoo mën a dox ñàkkoo mën a wax naagoo te loolu lu jafe la dangaa wax ne àddina ji ku fi yàgg kël a gëmoon day mujj di la yërëm moo tax yàgg fi mutu ko waaye moom day lim dund kenn foogu ko moom sëñ Tuubaa ndax di jénn jëmm wër say noon yi nga xam ak yi ñu xamut mu dund juróom-ñaar fukki at ak lu topp sallallahu alayhi wa juróom-benn fukk ak lu topp la dundoon doomam yi doomam yi gudd nañuy fan te dara dalu ci kenn mucc nañ ci seen ruu mucc ci seenu yaram mucc ci seeni xol loolu yooyu dafa mat a mm-hmm. kon nag sëñ Tuubaa moom wàcc na jógu fi nag yéen ñii sëñ Tuubaa ngi ci yéen ndax loolu la ci jublu wa jaana zurriyatahu humul baqina baqaaw bu muy wax mooy nekk fi ba nga xam ne dara du mën a ñàcc sa gannaaw mm-hmm. sëñ Tuubaa de dee sa gisoon jëmmam mu bàyyi fii mbind bàyyi fi ay wax bàyyi fi ay jeexi bàyyi fi ay yéere nga xam ne kenn na tëbliwut amul sëñ Tuubaa te loolu lu jafe la luñ mën a wane luñ mën a wane loo xam ne dañuy xam ne lii moom mi ngi nii loolu loolu loolu loolu gi sëñ am na ko bisam yéeg yëngu yii yëpp itam lépp dafa jëm si moom rek mm-hmm. mawaadi yeeg mamaraat yeeg manazil yeeg duyóor yi machakir yi masajid yi yooyu yëpp mooy ay bérébam hmm. fu mu romb nga dégg ñu ne fii dafay julli woon hmm. ila mawaadii yaquudu llahu asraara la ilaha illa allah fu mu romb ba fa dara hmm. fu mu fu mu sax nag loola far fa sax loolu lu kiimaanu la moo tax nanu sant bu baax te li nu bokk nag mu xam ko tey bàyyi ko xel ndax euh, ndax bàyyi xel taqwa boobu ñuy wax firiwul ragal yàlla ragal ñu ngi koy def loo xam ne lori kese la loolu dañ koy ragal bu dee njariñul kese dañ koy xemmem bu dee lu ba yor lor ak njariñ dañ koy wattandiku ak taqwa mooy wattandiku yàlla ak bàyyi ko xel ومن ومن يخشى الله ويتقيه كون دو خشيه التقوى مالي خمال ني تقوى دو راغال نخو من يخشى الله لا جيك واخ ويتقيه فاولئك هم الفائزون نون نك ني ني ديف سنتو با موي باي كو خي كو خاني لو ام موما لو خام موما نوميل نونا موما فوج لا تك موما موما يوي نك نو ديكو جاريño ci fam nu noppale te fa yan bi dikke nak nu daw ko du ngor ci waaw loolu du ngor ci moom ko fàttee nan koy bàyyi xel daa dëkk ak noonu di fanaan ak noonu di yendoog noonu wóor ne yàlla mi takku takkalikoowut ak noonu su nekkee ci lu dul lam lam doon nag waxuma ci jaamu yàlla loolu loolu ku ne nga koy defee waaye lii mu fi bàyyi ten war koo sàmm ndax moom ak may la yor hmm. sëñ Tuubaa dafa yor ak may yor ak sañ-sañ ak may moy fadlullah ñu bari dañ ko am sañ-sañ nak jamono ji ne kenn lako ci yàlla jox wa anna alfadla bi yadillahi yutihi man yasha wa ay wallahu yahtass ixtisaas la bi rahmatihi man yasha kenn ko yor mayam yoyu nak ak sañ-sañam yoyu nak mom la mom la liggey ba mom ko teyiko diko jaay ab yar teggin akub talibi ak nangu kilifteef waaw te su boobaa nag day yokk rek dootu wàññi ko te kenn du la ko mën a xañ yal na nu dimbali yal na nu dimbali ndax ndimbala ma am solo yal na nu dimbali nu dale ci moom yem ci moom yàlla bu nu am lu nu joxut yal na yër suñ xol yii mu séen mu nekk mu faxas ko ne ko ci bitti ba loola génn mu dugg moom te bu duggee yàlla na dëkk te bu mu génn ti wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa